مستودع حيث يخسف الورق ما بت البلاد لا بشر أنت ولا مطهط ولا عرق مطهرا تركب سفين وقد الجمع نسرا ولو الورق وردت نال الخليل مكتتما تجول فيها فلا تعترق تنقل من صليب إلى رحم إذا ما ظالم بلا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من عند فلالها تتا نطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذاك ضياء وفي نور السبل الرشاد نخترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والماضي أن تعظم أهلنا من ذلك النور والضياء وانتدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفلغ أغلاقه أيروه مخلوق ثناك بعدما أثنى على خلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سبق الأقوال سواء Yabinu وسيلة مثل الصحيح يا متوقدي فمن كان ومن ذا يكون كأحمد نظاما للحق أو نكال المهدي غر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يلوه ويشهد وضم إلى اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمسين موزن الشر وشق له من اسمه ليجل له فذو العرش محمود وهذا محمد تهدي به ناقة الإدماء معتجرا بالبدر كالبدر جلا ليلة الظلم وفي عطافي أوزنا وردتي ما علم الله من حين ومن كرم إن رسول سيف يصدع به مهند من سيوف لا مسود وأبيض يستلقمام بوجهه ثمار اليتامى اسمة للأرامل يلوذ به أولاك من آل هاشم وهو عنده في نعمة وفاضل دامادات النصارى في نبيهم وحكم بما شئت ما تحن فيه واحتكمي وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف ونزل إلى قدره ما شئت من عظمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عظما أيزموه هنا يدعى دار السرمم لم يمتحنا بما تعي القلوب حرصا علينا فلم نرت ولم نيم عي الورى فمعناه فليس يرى للقرب والبعد في غير منفهم كالشمس تظهر لعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف ينكر في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم وبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ومن بلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي مساقت ومن له الحسن فقط محمد هذا الذي عليه الهبط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 بحر أنوارك ومعدن إسرارك ولسان حجتك وعرش مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وطريق شريعتك المتحدك إنسان عين الوجود وسبب في كل موجود عيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لا دون علمك صلاة ترضيك وترضي وترضى بنا وعن والدنا وشيخنا يا رب العالمين لي سعادة من عزهم أقدام فوق جبا إن لم أكن منهم بلي بحبهم عز الوجاه فبجاههم وبيدهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بخيرها من لا لنا رب سوى تنعت ربيعي بمنحتي شفيعي بالمنطق البديعي أبغي بها محمد تنعت ربيعي بمرتي شفيع منتقي المريض صلي على خيلنا من العلا على السماوات علا بإذن ربي العلي يا ربي بمرتي شفيع منتقي المريض ألم بشار المولدي شر العلا وسددي شر النبي أحمدي

شر الذهاب الترحي وفخرنا والمرحي شر النبي الافضل وبرحي شكره وقفوا الغرب أقوى شر الفرح وسرور بين الشهور متوجن كل ليل أنا طاقي شفيع منطق البديع خلق كون فاتح من خص بالفواتح وحاز خادم من الليل ومرأتي شهري وبقي ولي عقبها أنا بشار الحاكم شار النبي القاسم وفاتح وخاتم وآخر وأول تنطق بمرأتي شهري وبقي ولي انفشال الأمر وانفشال النهي بكل واسط نكمله دمرت قولي بمرض شري الهادي لمن حجر وشادي وقاعد وحادي إلى الطريق الأمثلي دمرت قولي بمرض شري بمنطق البلي سبق سندي يوم ابتداء لرسلي فنادوني بمرأتي شهير من قتل البريء كلها أبا وكلها بقولي أنا لها إن الشداد الوجلي تهنئة ربي بمرأتي شهير من ربي سل وش واشفع لدينا تقبلي كلمات ربي وأبي شفيعي متقي الطريق أهلها أنا الهشام المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد من ملك أو مرسلين ربي صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسلين خير خلقي شر جميل خلقي شر عظيم خلقي في محكم منزلي كلمة ربي بمرض شفيعي منتقل بديع الحسن فقط علي جبريل الهباء بكل نور المرتلي تنظر بمرأتي شفيع كرى في البصر إلى مقام العلي يا ربي بمرضي شفيعي مراد من عجاب أمنة حين النصر سبابة ثم اقترب بسجة مبتلي تهتمت ربي بمرضي شفيعي منطقي المريء أخذ بها محمد كما ترى القصر في وحل الكسر بصنم مجدل بمراقي شكل المنطق البليغ وغاضت البحار وجفت النار من اجلي والنار قد طفئت من خجلي طلعت ربي بمراقي شفيع المنطق البليغ نكدي لرميها بالصدي وعدلها عم قدي من الخير خير يا ربي بورقي شبيعي بنطق البريء اخذ بها المحمد شيطاني جرى عظيم الشاني من أوضح البرهان لعظم ما بيبكلي طيب، بمرات الشفيع بالمنطق إبطالي رجالي بأفضل الليالي ببلدي المفضلة يا طوربي بمراتي شفيع من قتل البريء أبقيها اليوم العيد ما مثله من عيدي قد حل في المولود في محل زحل تهنئة ربي بمهدي الشفيع بمنطق البديع هذا بيوم العيد ما مزلوم من عيدي قد حل في المولود في محل الزحلي هنئة ربي بمهدي الشفيع بمنطق البديع أهلا وسابعي الولادة ومات وسادة من وفق ما أراد إله في الأزل ربي يا محمد بسمي محمدا خير اسمي رمزا لما اسمي من جدي لانجلي تهيئة ربي بمرأة شفيع بمنطقي البديع سابعين ولادة ومات أسادة من القمى أراد إله في الأزلي تهيئة ربي بمراتي شفيع بمنطق البديع يوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى اسمي من جدي لينجلي يا طوابي بوراتي شمي بحمد الأولين له والآخرين فكان زائقنا من الكريم المفضلين فلا ربي أتي شفيع بالمطلق البريء عبد محمد أهلا بيوم اثنين مولد ثاني اثنين وباس سرير كوني مقدمي مبجلي رحمة ربي بمراتي شفيع بالمنطق القرية أقوى محمد يوم الصار شنو واستنار لمن حول الفخارة وغفلة من منزلي تنهة ربي بمرة شفيع بمنطق بريع أكرم بشار النسيان مولد خير إنسان قدوة آل إحسان وكامل المكملين تنهة ربي بمرأة شفيع بمنطق بريع أكرمها ولمتي الالي في عده الليالي بزينة المال كجور المفسدين أقول بمرة شفه منتظر ضروري أبوه محمد نجاة الربيع بمدحة شفيعي بالمنطق البديع أبغي بيا مؤملي نجاة ربيع بمرة شفيعي بالمنطق البديع أبغي بيا مؤملي وليا آه، وناصرا خفيا لنبطش غويا بجايا وديك الملايين تعني طبي بمعتي شفي بالمنطق البريء صلى الله وسلم إلى علي أفضل الصلاة ما دام كون الإله من أبد لأزلي تعالى ربي بمرأتي شفي بالمنطق البريء وأهلي وصحبي وزوجي وحزبي وكل آل حبي مع السلام لك مليك ربي بمناطق شبي بالمنطق البديع أبو يا محمد يا إله الناظم يا واسمع لقاريا واللي حتى وعمهم بخفيلة يوفيمون وعيب الدار ما فاتي الكدر أجيب دعاهم واجب بالذي طلبوه بجاه احمد ما صاب الخير اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما وبالحوض لما سبقنا صراط الاقوال الى صراطك المستقيم ولا آل حق ذي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الداعين ومن تبع بإحسانهم إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب المكتوم مولانا أبي العباس سيدي احمد التجاني وعن سائر خلفائه وعلى راسهم شيخ الاسلام وسعادة الانام مولانا الشيخ ابراهيم يس رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته امين مكي الاسلام مامي لين نوي نوي الاسلام غودي جي جيخنا با بري واي لوني مانتا ديف ليب دوني مانا دوني دو تخ ني باي ليب واي ان تشك نيتو تا لو توتي سي لو بري لو بري لا guddi gi yëpp ci yàlla bëccëg bi yëpp ci yàlla lañ ko def yonent yi ba pare guddi dem ñu def ko ci yàlla def ko ci kan suñ wasiila ilallaah muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa nga xam ne yàlla maa ko wax ne ko su taxutoon ak yow du ma bind ak laajal lu la neex ma jox la ko kooku sangi sangi rek moo ko moom mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi kooku nag su fekkoon ne dañoo dajee benn gendeeku ci moom rek tasaaroo muraada mi àgg na ba pare sakkaat bëccëg beeg guddi gi yëpp ñu def ko def ko ci kan ci commencement yi at mi nga xam ne mooy atam nasaraan mi nga xam ne ñoom ci la ñuy compter muy tey di première semaine bi nga xam ne moo ci njëkk jeex démb di àjjuma ji ci njëkk ci àjjuma ji tey di samedi ji ci njëkk ci samedi yi ñetti yéen diine yi gën a rëy ci diine yi ñoom ñëpp kenn ku nekk am na ra am nga màndarga boo xam ne mooy sa màndarga ca yàlla mooy ajjuma sayyidil awalina wal axirina mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom la ko yàlla séddee mooy alaamaam looloo tax ñuy julli ñaari rakkaat ci tusubaar ñaari rakkaay ji des daf ñu ko remplacer waxtaan wi nga xam ne moom la ñuy waxtaan muy ba googu nga xam ne dafa intéressé yàlla ba nga xam ne mu jël ko ci julli yi nga xam ne kuy dee sax du ko du ko du ko bàyyi wàññi julli mu defal ñu ko ba pare samedi di bisab nasaraan yi dimanche di misi misi yahudi yi mooy sang bi nga xam ne moom mooy bis bi nga xam ne mooy bi ñë mooy bisu àjjuma kon suñ dajee fii ci penc ci penc cheikhul islam yi suñ tasee fii ci tool ci tool yi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu di fàttaliku jaar-jaaram yi mën a kenn ku nekk mën ngaa def seetu sa morom soo ko xoolee gis ci Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu kon lu tuuti. ci lii lu bëri la lu bëri itam lu bëree bëri la ñun nag yàlla defal nañ ñu xaas boo xam ne lu bëree bëri la xol yëpp tooy nañ ci yàlla nit ñëpp uy si nañ ci oote bi yàlla mooy ajibu daaiyallahi aman aman yujibu mutarra ida daahu ya ayuha alladina amanu stajibu lillahi wala rasuli ida daakum lima yuxiikum yooyu yëpp yonent wax ko ci oote wala alquran wax ko ci oote boo xam ne ñi ñi koy ootee nga koy oo waaye ci uj bi nga xam ne itam ñoo uj ñu ne oote yomb na waaye uj si moo jafe kon nag ndokkaliku leen ci bisa tey bii maa ngi ndokkaliku ñi nga xam ne jiitu nañ fi ca bëccëg ba tey di di nuyu sëriñ daara Omar Lo mi nga xam ne wax na ci xam-xam wax na ci li nga xam ne mooy yóbbali kii bàyyi waxoon na na تريد الانام بان العلم هو الامام من من من لب لو خمنه موي ميغي موي جيت رك الايمان موي لو جيت رك الايمان موي موي موي كي موي خم خم خم خم كون موم لا ني جيت ري سي يفي موتاخ يونت يالله محمد صلى الله عليه وسلم بالقران دي واتي موم نكو اقرا كون لولو انتريسنا يالله وايه li nga xam ne moom la Cheikh Moustapha wax itam ci suñu wasiila gi nga xam ne moo dox suñu suñ digganteeg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy Mawlaana Cheikh Ahmad Tidiane nga xam ne keroog alastu bi rabbikum moom xaw ma moom la ñuy taseet xaw ma Mawlaana Cheikh Ibrahim xaw ma Mawlaana Rasulullah waaye koo ci taseet rek gis nga ñëpp kooku itam ne in su ngeen déggee ci man ay wax na ngeen ko peese ci peese peese peese peese sharia mu ne nag loo xam ne ànd naag sharia ngeen jël ko loo xam ne àndut ak sharia ngeen bàyyi ko defe naa loolu peese boobu wala ta wala nattale boobu ku jàngut mënu ko jàng mënu koo def waaye bàyyi itam moom mu ne itam mu ne tabsiratul anaami bi ann al ilmu huwa al imaam mu ne mi ngi xolloo nit mi yàlla yi ne xam-xam mooy jiitu ci lépp kon nag suñ jàngee fii ba pare sëriñ daara su ma xool sedd na trop ndax bi nga xamee ne junj na junj bi ne xale yi nañuy jàng di def ay xutba rek li ci topp ñaari kalima yi ci topp ñoom ñëpp ay ndaw lañ yoo xam ne dañ ko wax ne uyu si nañ sa oote boobu moo tax kon alhamdulilah jàmm sant yàlla rek ndax lii yàlla moo ñu ko defal te sunna Mawlana Cheikh Ibrahim loolu Mawlana Cheikh Ibrahim umsiyetu mawlidu nabawi sharif ngoon nga tàkkusaan nga daf daan bàyyi li muy def yëpp nit ñëpp di jànkat yëpp di jàng di def ay xutbay arab mu xamee ci ne xam-xam ndax jàng xam-xam mooy mooy mooy mooy arab dëgg dëgg dëgg dëgg waaye xam-xam olof dañ koy wax sax waaye waxuñ dëgg dëgg xam-xam ndax ñaari yoon lañ koy wax répété dañ na xam xam kon nag xam bu njëkk bi mooy jàng waaye xam ñaareel bi mooy xam yàlla kon nag alhamdulilah bi nga xamee ne abul fayda maulana rasulillah maulana cheikh ibrahim moo ñu gindale ci lii ba nga xam ne su mag ñi di wax sax ñun ñu foog ne ay guney wax kon nag dal nañu yàlla saxal ci yoon woowu ci la ñuy dund ci la ñuy dee ba ba ñuy fekk mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yow mu alastu bi rabbikum keroog ba sol xale yonent bi yonent sallallahu alayhi mu fëgg buntu aljanna mu ne kan la yonent yàlla ñu ne ko mu ne ko Muhammad ibn Abdullah mu ne ko yàlla ma sama sama borom digaloon nen naa la ubbil nga jëkk dugg bàyyi sol xolleel ko mu ne xanaa kooku du suma tàggkat bi muy Cheikh Ibrahim Niass mu ne ko ana ah mu ne ko rammul sa niñ ma fekkee man tukki mi mujj bàyyi tukki ci Nigeria mu toog ca Sokoto toog hmm? mu ci Zaria def na fa ñetti jël ñetti jataay te dafa defoon programme ne yeneen yeneen yeneen région yëpp bu nekk dana fa dem waaye autorité bi nañu ne maanaam li mën garder sécurité bi nga xam ñoo ànd ak Maulana Cheikh Ibrahim amuñu armée bu em noonu ñu ne kon nag nañ ko emale fii bàyyi leen tey jii maa ngi ci Zaria waaye ne leen óor na nga ca Sokoto maa nga ca maa ma nga ca Gombe Maulana boobu photo boobu am photographie sax boo xam dafa bëgg a mu photo Baye mu doon ñetti jëmm mu ne bi bay wax lo rek la photo mu do ñetti jëm waaye Ibrahima Mahmoud Diop bi nga xam ne ku moytan ku sàmmoon la ci sharia mu oo ak Baba Lamine ak man ak Mouhamadul Aqibu ñu oo waa ji ne ko waxal sa diggante ak yàlla xamal ne ki ngay ooteel laajut publicité kii ngay ooteel dëgg rek lañ soxla ci moom li nga wax ni dëgg la wala déedéet mu ne wax dëgg mën naa ko def waaye damaa xam ne man photographie bi rek mën naa gannaaw mën naa def ñetti Cheikh Ibrahima ma xam ne kon jëmmi Cheikh Ibrahima mën naa nekk fu nekk mu ne loolu itam beneen gisin la kon nag ñu ngi sant yàlla ci yéen di leen yàlla di di wax ne lii ca kanam Mawlana Cheikh Ibrahim moo ñu ko sunnaal pour ñu ci la ñuy xamee kan mooy Cheikh Ahmada Tidiane waaye kan la ñuy xamee rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi daf daan wax ne alquran mooy mooy leetar bi yàlla bind jëndee jëmee ko ci mbindeef mu ne ki gën a ñàkk solo su joo doon benn benn convocation bu jëm ca jógee ca préfet wala ca góor gouverneur wala ca ministre wala ca président de la république mu ne kon du am jàmm lu may jàngal nañ ko la nekk ci convocation ba kon nag convocation bi nga xam ne yàlla moo ko bind jëm mu jëmee ne ko ci mboolem mindaak mindaakoon yi muy alquranul karim lépp lu mu santaane ci la ko santaane lépp lu mu tere ci la ko tere kooku mooy alquran ndax su fekkoon ne dëgg-dëgg ñun dañoo bëgg a tànnal yàlla yàlla ci yërmandeem ci la waxee ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi نكو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يوني ولا لومي نيو اندي يرمانا جيم سي مبولم بي داكوني سوكو نيهون كاي دافنا جيم رحمة للمسلمين وايي نك لي يرمانا يونت تابينا سي كين كو نيك كوكو خام اك كوكو خامت كون نك نوك لي كولا لي نيغا خام نيي خام نين كو بودي كو ماغال لولو بنين ماي لا بنين بنين ماي لا سي كو ماي القران جوجو سي لا يالا سانتاني لپ لوم بڬ سي لا سانتاني لم تريك su taxatoo nag yërmande yooyu nga xam moom la yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam andi su yàlla yónnee woon ci ñun malaaka dañ naan ko ñemewuñ malaaka te danañ am lay su yónnee woon ci jinne dinañ ko wax ne ñun ni jinne yi déggee ak ni ñemee ñun niroowuñ ñoom ñoom waaye kon te mënuñoo tànnale suñ bëggee tànnale lii yàlla bëgg ak suñ bopp góor gu nekk dafa soxla jabar jigéen gu nekk dafa soxla jëkkër ñoom ñaar suñ seeyee bëgg nañ doom su doom jooju du moom xam nañ ne dañ fi jógee suñ dee mu des fi nekk ren seen seen kii boobu continuer comme ni nga xam ne suma tooma Cheikh Mouhamadul Makki ibnu Cheikh Cheikh Oustaz Kebaalo nga xam ne fii jotaay bi bàyyi moo fi doon taxaw di fi wax waaye démbay tey rek ñun xàmmewuñ asl ba wala fara bi ndax démb la woon wala tey la waaye la woon fa woon rek kon nag sant yàlla loolu loolu moo tax ku def ku am loolu mooy mooy deewoo dee mooy koo xam ne dangaa dem bàyyiwoo woo fi dara waaye ku dem bàyyi fi xam-xam bu ñuy jëriñoo wala wala loo jumtukaay bu ñuy jëriñoo wala ay doom yoo xam ne dañ lay ñaanal yàlla ma ne kooku deewul ki dee mooy ki nga xam ne dee na ci zaahir ak ci baatin kon alhamdulilah jullit nekkuñ ci loolu bi nga xamee ne doomu aadama moom xamul nu ñuy tànnalee pour seet lu neex yàlla suñ doon tànnalee ci suñ bopp dañuy seet li doomu aadama bëgg rek bëgg na doom bëgg na jabar su nekk weege jigéen la bëgg na jëkkër su nekkee kenn ñoom ñaar la bëgg nañu doom waaye yàlla bëggul loolu kon lu ñuy xamee nu yàlla bëgg te waxuñu ko kon moo tax dara nekku fi woon ba fi ba dara nekkut jëmmi yàlla ji rek moo fi nekkoon ba ba dara amagut yàlla ji rek moo fi nekkoon muy dayaw wéet kenn xamul ñaata mbindaakoon la bind njëkk muy bind àddina bi nga xam ne ci lañ nekk aadama ak xawaa ji njëkke ko waaye nag mu witay wo bam ne ba bëgg ñu ko xam mu ne kuntu kanzan lam uraf fa ahbabtu an uraf fa khalaqtu khalqan wa bihi yaarifuni damaa nekkoon am naa ma boo xam ne kenn xamuma ma bëgg ñu may xam te dara nekku fi mu daldi bëgg créer dara kon fan lay jëlé matière première bi ci bopam la ko jëlé bop kooku moy haqiqatu muhammadiyya tuddé nañ ko nu nekk hayula malakum kurubiya xel mu njëkk ma mu sell ndax loolu doomu aadama mënu koo tënne la yàlla rek ka fi nekkoon bu fi dara nekkut bu mu bëggee dafa leneen dafa jël ci leeram googu def ko muy xaqiqatu muhammadiya kenn xamul ñaata junney at la toog boobu at amut boobu asamaan amut suuf amut dara amut kenn xamut niñ doon compter kenn xamut ñi ndax temps ak espace amutoon mu nekk fa mu nekk di jaamu yàlla jaamu boromam kenn xamul naka la doon jaamoo boromam ba mu neex yàlla mu daal di bëgg koo feeñal ci doomu aadama yi mu defal ko jël li lu mel ni seetu seetu soo jàkkaarloo moom lay gis sa bopp ngay gis yaa nga fa te nekkoo fa cinéma sax dañuy def film mu am am ay action am ay daw am ay reyante mu mel ni mi ngi fi te nekku fi waaw mu defal ko lu mel noonu seetu booba ba ci yonent bi gisee ni mel dayob taar dayob mat su doom su fekkoon ne yàlla dana am melokaan melokaan woowu lay mel mu daal di am sa ci boppam ndax teraanga ju ju rëy yi nit ku nit ku iw soo ko mayee dafay teraanga dafay rus kersa googu nga xam ne yonentu ma mer rus na am kersa ci lu lu rëy li ko yàlla may ak lu rafet li ko yàlla may moo tax mu ñaali ñaq ñaq woowu nag ba mu ko ñaqee mu sotteeku looloo njëkk génne te jël ci yonentu yàlla Muhammad yàlla mu nga defee tëj yonentu mi ngi defee tëjëli ci yàlla waaye ndox moomu muy ñàkk woowu moo njëkk a génn ci moom ba mu génnee teg nekk fa mu nekk booba bi yàlla di defar kaw archem bi nga xam ne moo nekk ci ci ci ci kawlu bi booba ndox moom rek a fa nekk ñàkk woo ñàkk woo moo sotteeku ba doon géej géej googu nekk fa moom itam géej gi nag melokaanu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa xam ne ci moom la jógee fa mu jógee tiitaanga gëm kiitee foo fekk géej melokaanam mooy dafay pat pali di yëngatu yëngatu booba moo jur ngelaw ngelaw loola moo jur moo moo moo moo jur purit purit mi itam ngelaw li di ko ëf ba mu wow ba mu woowee ba am ci yu do an ay xeer xeer itam ngelaw di continuer di di yëngatu ndax kii booba raf gaf googu nga xam ne lox googu nga xam ne mi ngi ko doon lox ba tey mu continuer di def xeer yooyu di fenqalante bu mu fenqalantee saxat génn saxat gannaaw gi nag bi yàlla bëggee bind kawnu bi àddina bii ci la jëlee matière première bi mu defar yépp ci yonent bi la jógee mu dem ci ñaqaw nga ñaqaw nga daal doon purit mi purit mi daal di def teer wi teer wi fettalante génne saxaat saxat si mu defar ci asamaan su li ci des mu defaree ci suuf si bind àddina bi ci juróom-ñaari fan nag juróom-benn fan su neexoon yàlla kay daf naa nekkal rek mu nekk ndax xaqiqatu Muhammad moo gën a kawe loolu yépp te ba mu koy def daf na ne nekkal rek mu nekk waaye doomu aadama bi nga xam ne waxoon na ne xal naa def inna jaal naa fi l ardi xalifatan defar xam naa defar yàlla melo xalifa xalifa ci ñun liñ ko gisee mooy ku fi bàyyam nekkoon ba dee mu mu mag mu ñëw jiitu waaye du pasoŋ xalifa boobu xalifa bu mooy ki kuutalal yàlla nga xam ne moom lañuy ñuy moo ñuy gidde oman ñu jëmee ci yàlla xalifa booboo nag ba ko yàlla waxee ne moom moom la gaaral na ñooñ kaw ak ñooñ suuf ñëpp ba mu leen ko gaarale ñoom ñëpp ñu daal di gàntal ne ko yàlla yow duñ ñaan ñu ngi lay lentalu ci sa màggaay bi bul jël ci ñun cër boo xam ne dafay dem safara mu daal di gaaral ko aadama fekk aadama ba bu ko yàlla bindee ci aljanna la nekkoon mu ne ko askun anta jukkal zawjuka aljanna ba mu demee aljanna yàlla kàddu ga daal di ñëwal ko ne ko ndax nangu nga ñu jël ci yow matière boo xam ne dañ koy def yàlla ñii yàlla gërëm leen yóbbu leen aljanna ndax yàlla bi mu bindee àddina ci juróom-benn fan mënoon na ko def ci gendeeku rek waaye dafa bëgg mu ne moo tax ñu ne yéex ci yàlla la jóge waaye gaaw ci seytaane la jóge moo tax lépp loo xam ne dañ ko tabax ci gaawtu rek li muy mujjee mooy dafay yàqu moo tax nag ba nga xamee ne defar na booba bis bu njëkk ba booba boobu bis amut waaye li yàlla njëkk a bi muy defar àddina bi bisit dibéer débéer la tolloot débéer ci arab niñ koy compter mooy axat konte rek la ahad ba njëkk a def ni mooy altine salaasa mooy talaata alarba ba ba léegi na tëjaliyaat yooyu tegalee woon bi ñuy bi ñuy bi ñuy sanc àddina bi noonu la arab di konte ba léegi suñ ne benn na ñaar ñett ñeent bu ñu demee ba ci juróom-ñeent konte foofu la jeexee li nga mën rek mooy nga ne fukk ak bennati fukk ak ñaar répété su demee ba ci kanam nga teg benn zéro muy fukk nga teg ñaari zéro muy téeméer nga teg ñetti zéro muy جنة دمت نون لا يالا دفن بيغا خامي ني داف نا نونو با بيند ادنا بي دفر اسمان دفر كي ملائكه ني تيك اسمان اك عالم كين دك غوت سي كو سوف مو ني نك داما بغ سوف ما دف سي خليفه ملائكه ديغت نكو اتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء نخ دا غاي بيند تي سكو سوف سي ño xamne dañuy ci dañuy yàq di tour de ret mu ne wa nahnu nusabbihu bihamdika ñun malaaka amuñ lu ñuy def lu may di sàbbal si tur rek wa nuqaddisu laka yàlla ne leen inni alamu ma la taalamuun man xam naa loo xam ne xamu leen ko ba leen loola jaaxalee yàlla teewal aadama teewal malaaka yi ne leen ambi'uuni bi asmaai haulaa in kuntum saadiqin wax leen ma tur yi su fekkee ne dëggu ngeen ci da ngeen wax bay diingat suma wax ji نيكو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا من يقم لما لو خمل انك انت العزيز الحكيم دال لي لاج ادم بام كو لاجي إيه ادم لوم كو لاج رك مو تونتو كو موي لن اسجدوا لادم نا خمنا لو خمنا خمولن كو نيوم نيب ني روب سي سوف سجود بام ديس ابليس ابليس نه naka laay sujjootalee koo xam ne ñi ngi ko defaree ndox ak ban ak suuf ba pare man man man man ñu defaree ma ci leer ma njëkk koo dal ñu njëkk ma njëkk am njëkk sama amam gi njëkk amam gi ma di ko sujjootal man du ma sujjoot ñoom biñ sujjootee ñii ne ab gendeeku la ñii ne genn wàll bis la ñii ne semaine la waaye sujjoot bi yàlla santaane woon daal benn sujjoot la wax ne sujjootal leen ko biñ siggee ñoom ñëpp ñu gis iblis moom ma nga ne sat fa mu taxawoon sujjootut ñoom ñëpp ñu rotaat sujjóot sujjóotam ñaareel moo tax sujjóot bi yàlla santaane woon benn la mooy sujudu li aadama waaye nag bu ñaareel bi sant yàlla moo tax sujjóot foo ko fekk rek ñaar la benn bi topp ndigal la benn bi sant yàlla la waaye loolu aadama su ko bàyyi daan li mu ne aadama li muy foore malaaka li muy li mu fooree nga xam ne du lekk du naan du def lu may laa yaasuuna allaha ma amara mënuñoo def lu may lu yàlla santaane duñ mënuñoo def contraire bi ni ben ben benn yàlla sant ne sant adam ndax xam-xam bim ko xamal ne ko sujjóota ko màgg len ko mu ne waaye yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam sanga boy njëkk ak boy mujjé mom bako yàlla bindé dafa wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla ki malaakam day dañuy julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne ku gëm yàlla na nga sujjóot yàlla koo xam ne yàlla moo koy sujjóotal sujjóot boo xam ne amul sërmal moom malaaka bi mu ne ku gëm yàlla rek évité naa la kon dafa mel ni ku julli ci yonent bi rek uyu nga évitation yi yàlla boobu su ko Mawlaana Cheikh Ibrahima waxee ba pare mu ne julli leen ci yonent bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin kooku moo ñu tax a fii kooku moo tax yàlla bind lim bind kooku lépp lu ñu am ci moom lañ ko jëlee ba yàlla ne ko su taxu yow du ma bind mu ñëw fi doon ndimbal waaye ñun war nañoo sant yàlla ndax dañuy wax li ñu yàlla may pour ñu ñu xam lim ñu may ndax ñu mën koo sant moom yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla moom la njëkk a bind mu nekk fa mu nekk di sàbbaale yàlla ba mu neex yàlla mu bind waaye ba mu bindee itam aadama la njëkk bind ba pare jël leer googa nga xam ne moom la mawlaana cheikh ibrahima ji di wax nuuruhu awwalul wujudu wujudan وهو أصل الأصول والأنجال لير غوغا ما في نيكون مو دالي دخن كو تي نيغي عالم نخ ني تخ مو بيند كو دي نيوم مو تخ نيغا خامني سوم عالم دي دوخ غيس اي منا كون ييب توب كو دي سابال مو نيو سوما بروم ني توب ما فمو ديم رك ني فك فمو ديم ني توب سوما غنا لو تخ مو نيكون لي تخ ما بيند لي تخ ما بيند لب لو ما بيند موي الحقيقه محمديه بوبو mom la def sa gannaaw ndax ña tax ma bind ko ñëwaguñ mu ne kon defal ma ko ci suma kanam mu fete ma kanam ndax may tam ma mën cee sàbbal mu def ko feneen ci baram sànnikaay bi mu ne ko moom nag am na ñeenti saaba yoo xam ne mënuñoo tàggoog moom léeri aboubacar sadiq mu mooy saani yasnayni isuma fil xaar aboubacar sadiq yaa bàyyi daf daan wax ne lu dul lu yonent yi rek moom moo gën ci minaakoone ndax moo njëkk a uyu ci lislaam ci mag ñi waye mom moy sahibul isnaini isma fil ghar moy ñaare lan kooka nekkoon ca xuntuwa muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi gadda di Medina mu ne mooy moom rek la yàlla tudd tuddee ne tuddee ko ne saxaaba moom saaxibu saa saaxibu ma saa saani isnayni isma yaquulu li saaxibihi yàlla ba wax aboubacar laa taxzan inna allaha maana mu ne ko moom dafa jàqoon foog moom ne moom bakkanam bi du dara waaye kii nga xam ne moo tax ñu bind àddina bi yëpp mu indi lii yëpp àddina bi te ñem ko jëmee àggagut ca ñoom mu ne yee mu ñu rey ko loolu daal moom mu fekkee ko daal loolu loolu ala loolu toroxtaane la ci mu ñu ànd ak moom jiitu ko ci kanam mu yàgg mu des gannaaw mu yàgg mu ñëwee ndeyjoor mu yàgg mu ñëwee jàmmooy mu ne ko Aboubacar dalal dalal mu ne ko mu ne ko damaa ragal ñu kee mu ne ko dalal ñu xoolal ca xuntu nañ mu ne ko xoolal mu gis ak géej yoon wu wun a tay ubbeeku ba pare géej gi nekk ci bato nekk ci mu ne ko gis nga ñii suñ bëggee ñëw ci ñun ñu dem ci bato bi jaar dem suñu yoon loolu la alquran di nettali id yaqulu li saaxibihi laa taxzan inna allaha maana bul ragal ndax yàlla mi ngi ànd ak ñun kon ñun ñi ngi nañ sant yàlla ndax yàlla moo nekk ak ñun li nga xam ne moo taxoon mu bind àddina bi yépp moo ñëw ci axiru zamaan ci jamono ju mujj ji nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ci jamonoom dafa doon wax ne am na aw nit woo xam ne gë gërëm naa leen am na aw nit woo xam ne sopp naa leen niñ ma soppee aw nit a ngi woo xam ne bis bu yàlla jëlee keram yëpp ba ker amatut fooy fooy keroo ker gam may keral man danaa ko bokk ak ñoom ñu ne ko xanaa ñooñu ñooy yonent yi mu ne déedéet ñu ne ko xanaa ñooñu ñooy awliyaaw yi mu ne déedéet ñu ne xanaa kon ñooy ñooy shuhadaa yi mu ne déedéet kon kan la kooku nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy bëgg di seede ñu ñu bëgg la mu leen ni aw nit woo xam ne doom yi nit ñi lañ dañoo ñëw suma gannaaw gisuñ ma sax ñu gis ma bëgg ma maa ngi leen di seedeloo ne ñooña bëgg naa leen te lu ma am naa ko bokk yooyu nekk ñooy ñooy xeetu yonent yàlla Muhammad yi alquran di wax ci ñoom kuntum xayra ummatin uxrijat li naas yéenay gën ci xeet yu ma bindal nit ñi lu tax taamuruna bil maarufi gàmmu yi yëpp amr bil maaruf la وتنهون عن المنكر ضد النبي نهي عن المنكر وتؤمنون بالله يلا رك لا نبغ مولانا شيخ رايم من متاخ ما دون وخني امنا بن بيس من مبغ سيت موم اك نيم اندت فوم لين جيمي تم من القران رك موكو جانغال القران من مو خلال خلال خلال نيك مو ديلو سي يالا سي تيري بيغا خاني سي لا يالا بن سانتاني سي لب لوم سانتاني mu ne alif laam miim zaalika alkitaab laa rayba fii hudan lil muttaqiin mu ne téere loolu téere boobu nga xam ne amul sikk ne dafay jubal ñu ragal yàlla ñi alladina yuminuuna bil xaybi nit ñi nga xam ne dañoo uulu dañoo gëm loo xam ne gisuñ ko sax wa yutuuna zakata te dañuy joxe azaka wa mimma razaqnaahum yunfiquun mu ne te ñi li leen yàlla di di di di di di wërsëgal ñi ngi ci ñi ngi koy joxe ci ngir yàlla ulaayika ala hudan min rabbihim ulaayika hum muflixuun mu ne ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy gañe mu xam ne ñooñu gis na ci mbooloo mi te bu gisoon na ko Mawlaana Cheikh Ibrahima démb mooy tey mi ngi gis ay nit ñoo xam ne dañoo gàddaay seeni nelaw am nit ñoo xam ne semaine bi njëkk am samedi bi njëkk am ci atam mi dañoo ñëw joxe seen alal ba pare gànnaay seen i nelaw ñëw toog ca suba ba tey bàyyi seeni kër bàyyi seen nopp lu ñu doon def ñëw ngir bëggante ci yàlla kon maa ngi leen di ndokkeel ci loolu bëggoon nañoo gën a guddal ndax ni ma ko déparé wax ji ne loo xam ne mënuñ koo wax yëpp lu tax ñu bàyyi yëpp waaye dañ cee mos tuuti rek waaye yéen ñëpp seen kanam yi siimaahum fi wujuhihim min asari sujudi sahabat rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo moo yàlla moo doon wax ne moom seen xàmmekaay yi mi ngi seen kanam yi siimaahum fii yi mu ne seen xàmme seen seen xàmmekaay yi mi ngi seen kanam yi min asari sujudi lu ko waral ndax jeexital yi sujjóot yi ñuy def toog nañ fii julli fi tusubaar julli fi tàkkusaan julli fi timis julli fi gee te su demet su fekkoon ne fajar yodde itam ñu julli kon maa ngi leen ndokkeel ci loolu di leen ñaanal yàlla ne beneen yoonu incha allah occasion bu njëkk a am lii sëriñ daara wax sëriñ daara bi nga xam ne liggéeyam def ko def ci xidmati cheikh xidmati alquran ba nga xam ne dañ ko tuddee sëriñ daara mu cheikh Omar Lo mu jël këram def ko muy daara mu jaaxal ci dundam bi yépp xam njëriñi alquran moo tax mu ay na ko dëkk bi nga xam ne ñun xam nañ ne ñi seede nañ ne ne ne ne bëgg na leen moo tax waxtu wuñ tuddee Paymar mu bàyyi lim noonu def yëpp daal di ñëw yal na yàlla yokk teraanga ci moom yal na yàlla saxal loolu waaye lim leen ay na ak lim leen bëgg yàlla ko yàlla def ci ñoom ñëpp ndaw yi beneen yoon Mawlana Cheikh Ibrahim noonu la doon def tàkkusaani gàmmu dañ daan mbaar xale yi jàng ñii di tari alquran ñii di tari tari ay ay di di di wax ay discours ci arabe di jéem ndax al alquran mooy langage langue bi nga xam ne yàlla moom la waxee mooy luxatul quran te mooy langue waa aljanna waa aljanna ci la ñuy waxtaanee kon ñi nga xam ne waa àddina yi sax ñi nga xam ne juddit lañ moom la ñuy waxee ndax ku gis sama am na wax ne salaamualeykum mu ne la wa aleykum salaam ngeen ngeen ngeen baaxantal ca loolu nga xam ne yàlla moo ko wàcce jagle ko xeetul islaam kon nag ñu leen di nuyu di ñu ngi moom moo taxoon nag ñu bëgg beneen yoon dañuy def loolu maa ngi doon wax ne liñ toog bi ñu demee bay nopp liñ toogoon nii suñu yëgoon euh, jàngkati alquran yi ak jàngkati français yi ak jàngkati ndax jàng rek la moom la wax moo tax alquran iqra ale la wax loolu la ñu ko wàccee mu ne loolu réew mu mu nekk rek wala dëkk bu mu nekk rek ngëneel ñëw na fa ñu bàyyi daf ko daan encouragé xale yi di def discours moom itam muy def discours su ko defee loolu mu doon loo xam ne dafay dundal alquran dafay dundal ñu siratu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dafay dundal bëgg-bëgg yàlla yi ak tere tere bi yàlla nañu ci yàlla saxal yàlla na yàlla saxal daara yi ba ba ñëwagul sax dégg naa fi ay discours jiboon na fi ci français jiboon na fi ci olof jiboon na ci jiboon na fi ci arab waaye loolu yëpp dañuy iqtidaa bi mawlaana rasulillah mawlaana cheikhul islam dañ koy topp rek ngir yow ma ngir bis booba nga xam ne yow kullu unaasin bi imaan mi bis benc mbooloo mu ne dañ leen di oo ñu topp seen ilimaan kon nag ilimaan yi nga xam xamaluñu lu may yàlla xaala rasulullahi xaala laahu kon jarna naa jàpp di ànd ci loolu yàlla na yàlla dëgëral dëkk bii yàlla am lu fi nar ku nekk ci yéen ay na yàlla boole ko ca ñee ñëwee def yàlla na ci leen ci yàlla boole yéen ñëpp ñu tabax dëkk bi ba nga xam ne dana méngoog turam wi paymar laajte naa lu muy firi ñu ne mooy mbalaanam buur mbalaanam buur kon nag buur a ngi fi waaye oddu itam a ngi fi te loolu mooy koom-koom loolu nag nit ñi le léeg su aw nit su fekkee ne ellooxuñ ak li leen yàlla ay na yàlla du ko bàyyi de daf koy denc ba ñeneen ñëw ñu o ñu ko elloo mu jox leen ko ñu ngi ñaan yàlla boppi at mi nga xam ne ci lañ nekk muy commencement yi départ boo xam ne dañuy delluwaat ca ba fi Mawlana Cheikh Ibrahim ñëwee firi alquran ba xam nga loolu xale xale taalibe la woon booba dafa ñëw dafa doon jàng waaye bàyyi yónni ko sëriñ daara bi ne moom doomi Alaaji Abdoulaye daf ñëw muy firi dafay toog jukki bi fu mu ñëw fekkee ko dem na def. firi na fi alxuraan ba jàll dem ba def mission bi ko bàyyam defoon ba dellu ba toog ay weer bàyyam yóbbu ko gannaaw gi wax yi ñëw ba dégg si mu ne ko Ibra damaa dégg ne ba nga demee Paymar da nga fa doon firi alxuraan mu ne ko waaw mu ne damaa demee rek ñu jox ma ko ma itam ma jéem ci suma ma jéem ma jéem suma kemt laay kàttan mu ne mu ne ko jamono dana ñëw danañ dem ba di la suuta rek man ñëpp danañ la wax ne yaa ma sut waaye Ibra bul nangu loolu moo tax su daan nettali def na li ko yàlla li yàlla may doomi alaaji Abdoulaye ci xam-xam ak jub ak raw ci seen jamono mu ne moom ñoom àgguñ ko ci moom cunk cunk moom mooy mooy lu mel ni baaraam am na ñuy am juróom benn baaraam lu tuuti loo xam ne dafay nekk fii mu ne foofu la ci toll loolu yëpp muy nangu loolu bàyyam dogaloon ñu ñu ñu mag ñi dañuy tuuti seen bopp ngir topp yàlla ngir tam nit ñi mooy su fekkee ne yow yaay yëkkati sa bopp nit ñi dañ la fay romb dem waaye soo bëggee nag ànd ak nit ñi da ngay suufee sa bopp ñoom ñu mën laa yëkkati ñu ngi sant yàlla ci daje bi ñu leen ñaanal yàlla gàddaay ngeen seen ite yëpp sonn def lu nekk garale gan yi bi ma ñëwee ci ngoon ba gis gan ñi ñëwoon fii wax naa laa wax ne gàmm gi danañ ko seetaat beneen yoon ndax mbooloo mi fiy dajee ñëpp ñu bëgg leen a loolu waay laaj na waaj boo xam ne lu ñu tëb rek na jàpp nañ gàmmu ga fii nii ay benn kii la ci benn benn lumière la ci lumière Mawlana Cheikh Ibrahim lumière la ci lumière tariqatu Cheikh Ahmad Tidiane xam nga luy bàyyi xam nga luy Cheikh Ahmad Tidiane xam nga luy yonent bi mooy yàlla rek su tax doon yàlla yonent bi nit rek la ni nit ñi waaye nag la ko yàlla ta jagale moo tax mu mu sut ñëpp Cheikh Ahmada moom itam éducateur boo xam ne moom itam dafa roy ci yonent bi ba mujj di moom moo tax ñu ñu ñu roy ko Mawlana Cheikh Ibrahim moom itam góor la ci góor yi rek Sénégal la benn góor la boo xam ne dafa liggéey benn góor la boo xam ne mu ngi doon doomi Alaaji Abdoulaye la juddoo fii ci Saalum juddoo fii ci ba Niassène yaroo fii ci Koosi daal di feeñalee fay fayda bi fee ca Medina waaye Medina yàlla siiwal yàlla dimbale na ko ci barke Cheikh Ibrahim ba nga xam ne siiw na am na ab jamono boo xam ne sax moo gën a siiw Dakar bi nga xam ne mooy capitale Sénégal dafa am benn bis ñu nekk Égypte di jàng dafa am ay sàmm yoo xam ne Soudan ci dëkk yi gën a bari gëlëm la dañ koy jaayi Égypte te Égypte mooy. pays bi nga xam ne gannaaw Nigéria moo ëpp population ci ci ci Afrique dañuy sàmm sàmm gi gël gëlëm yi màng leen di leen yóbbu Égypte di leen jaayee su ñu leen jaayee ba pare jënd seen yóbbal ñibbi Soudan ñu dégg ne am na waa Kër Baay yu fi nekk ñu ñëw ba ñëwee nit ñëpp dañ doon ñëw di seetaan ak journaliste yeeg mujj yi mu mel ni benn benn événement la étage bi ñu nekk ci kaw dañoo topp escalier yi ba ne ci mbedd mi. di jottalante seen addiya yi ba mu doon benn jóor kenn jege ma ci ne ma ñu ne yow yéen yéen yéen waa Kër Baay mu ne waaw mu jox ma benn kayit ndax ne ma ndax xam nga sa maam yi sa diggante ak Cheikh Ibrahima nga bindal ma ko ma barkeloo ko ma ne ko mooy suma baay mu ne Cheikh Ibrahima kon kan la dee ma ne ko deewagut mi ngi dund mu ne mi ngi ci kaw suuf si ma ne ma ne ko mi ngi ci kaw suuf si mu ne moom dafa foogoon ne ci jamonoy Cheikh ma tijaan ak jamono yi yonent bi ba ñooñ ci saxaaba yu njëkk yooyu la bokkoon xamutoon ne kii de téere bi rek lañ gis alhamdulilah bi nga xamee ne ñun Sénégal mënuñ amuñ waaye yàlla tànnal ñu li nga xam ne ñëpp ko bëgg daal di tegal ñu ko nii aw sa yi daj suñu yoon bi gàmm gi paase lu mat fukki bis ak juróom yoo xam ne dañoo jógee ca Nigéria ak ca Ghana ak ca Soudan di dox ñëw ba ci frontière Sénégal ñu dëpp leen ndax amuñu ay kayit ndax amuñu ay kii ñu nekk di jooy di jooy jooy ba pare daal dipp ñu tibb tibb ci suufi frontière yi Sénégal bi pour yóbbaale ko ci seen réew ndax yàlla def ci barke. ñun nag alhamdulilah yàlla boole nañoo Mawlana Cheikh Ibrahim waaye bi ñu booleeg moom itam boole nañoo góor yi yàlla yi nga xam ne ñoom ñoo tax Sénégal nekk ci jàmm ji xam nga li ñuy toog benn nit di liggéey fukki nit di ko dundee lii Sénégal rek la am réew kenn ku nekk sa lekk sa bopp sa bopp rek sa doom sax su màggee sa amee 18 ans koy fayeekuloo li mu war a fay ci ci ci kër ci kër gi ak dundam su fekkee dëkk bi rek lay fay mu fay dëkk bi waaye du fi lekkee waaye nag yàlla may ñu xéewal goo xam ne Sénégal ñëpp benn lañ kër goo dugg rek sa kër la ñoom te loolu góor yi yàlla yooyu ñoo ko def ci ñun jëlewuñ yar bi fenn lu may ci ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa tarbiya bi nga xam ne noonu la yonent doon dundee ak sahaaba yi moo tax fon nat ci ay juróom fukki kilomètre góor yi yàlla liggéey dafa liggéey boo xam bu Sénégalais boo xam ne Sénégal yëpp suñ naroon a taxaat yi kooku mën na leen a taxeel moo tax nag liñ nekk yomb moo tax ñi ñu war a weeg weeguñ leen ñi ñu war a respecté respecté wuñ ndax dañoo gis dund bi yomb kenn yëpp yëpp yëpp yomb waaye soo génnee Sénégal dootoo gis sécurité bi salaamaaleykum maaleykum salaam sax doo doo doo ko am ci ñoom kon nag loolu jërëjëfee góor yi yàlla yooyu loolu ci commencement bi mu leen tuddee woon ay tariqa tuddee ko nu la neex na tudd tijaaniya na do xaadiriya na do muridiya na doon lu nekk waaye yoon la rek boo xam ne ñoom méthode boobu ci lañ doon jaar pour pour pour pour omman nit ñi jëmee leen ci li yàlla gërëm ak yonent gërëm moo tax fu ñu mën di nekk rek ñoom la rek kon nag loolu yàlla bu mu yàqoo ci suñ jamono jamono ji jafe na fi mu nekk àddina bi mi ngi mel ni dafay bëgg a tukki bët bu sel nga dégg loo xam ne doo ko mosoo ko dégg wala nga da ko daan dégg rek te doo ko gis léegi nag ñu ngi commencé di ko gis ci Sénégal ci nopp ak ci bët yàlla nañu ci yàlla muy musal ñu ngi làqoo góor yi yàlla yooyu nga xam ne liggéeyal nañu yàlla ba yàlla gërëm leen seen ngërëmaane seen di bàyyi seen jaar-jaar bàyyi barke boobu ci Sénégal ba mel na mel xam nga ne taw tawee su su tàngee ñu tawat ne dafa tàng su seddee ñu tawat ne dafa sedd su tawee ñu ne taw bi dafa bëri su fekkee ne taw bi gàntal na itam ñu daal di tawat yàlla ci boppam mas naa dégg Mawlana Cheikh Ibrahim ci benn piré mu ne at mu jot miqdaar bi nga xam ne quantité bi nga xam ne moom moo wàcc ci taw bi jóge ci asamaan mu ne mës mësta yokk benn pepp mësta manqué benn pepp waaye su nit ñi jubee mel nañu war a mel mu tawal leen ko ci seen tool yi ñu daal di béy gerte gi baax wala du li ñuy li ñuy béy am meññeet bi am am am am njëriñ su fekkee ne def nañ lu dul loolu taw bi du tax mu tere mu wàccee waaye daf koy taw ci géej gi su ko xam nga géej gi mu ëpp mu ëpp suuf si su ko tawee ci géej gi ay mbindaakoon yàlla ci géej gi yoo xam ne ma li ci kaw suuf si matut asakaay li ci géej gi te jën yooyu nga jën li muy dëkk soo ko génnee géej mu dee waaye du du mës naan ndoxi géej ndoxi taw bi yàlla defal na ko ay machines yoo xam ne moom lay segg ndoxi taw boobu lay naan ñun suñ ko jëriñuwut kenn ñeneen a ngi koy jëriñoo te di ko sante yàlla kon nag nañ dellu ci yoon yi nga xam ne moom la ñu rëddaloon bañ mën a àgg ca njëriñ li nga xam ne Sénégal dana naat dana du politique du xëccoo du du leneen yàlla li muy séddale séddale na ko bu yàgg rufiatil aqlaam wa jëppati soxob yonent bi mu ne yëkkati nañ mbind mi mbind mi woo na ba pare mu ne te te lem nañ gi daal dara du soppee soppeeku Omar ibnu Xataab ne ko kon kay ñun jaratu ñuy sonal suñ bopp gannaaw yàlla li muy def dindi ne ko ku nar a texe dana texe ku nar a texe du texe mu ne ko déedéet ku nekk fan nar a jëm yàlla daf ko yombal loolu yombal boobu jotaay bii ngeen toog ci lay bokk toog fi da dara taxut lu may yàlla ak ab yonentam ñu ngi di gërëm ñu ngi di sant ñu leen di gërëm ci turu Paymar yëpp ñu leen tatagal ci pays Cheikh ñoom seen dund yëpp ci lii lañ ko passé képp ku ci aw rek yaa ngi ci xidma boobu waaye ku ko def itam yaa ngi xidma Cheikh Ahmada Tidiane waaye yaa ngi xidma yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax lañ doon wax ne jotal ngeen keroog ba mu demee ci xajatul wadaa ba ba wax ne mu ne mu ne ban bis ban bis bañ foo ne damay fàtt soppi bi fekk bisi àjjuma mu ne du àjjuma ñu ne naam mu ne ban dëkk du mag du makka bañ foo ne damay changé tur wi mu ko ñëw ko mu ne ban weer muy weeru xaj mu ne du weeru xaj mu ne waaw mu ne bis ni ki tey yàlla dootu wàcce dara li wàccoon dootu ko paase al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtum alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diinan diina ji dara dootu jotal naa mu ne ndax jotal naa leen ñu jotal mu joxañ ci kaw ne yow sama borom déggal ñu ne jotal naa daal di sëggaat ne leen ndax jotal naa keroog mi ngi toog ki gëlëm googu nga xam ne ma tuddoon albaaw mu daal di togg ca sëtam bi nga xam ne mooy mooy aliyu ibnu doom yi bint fatimatu zahra aliyu bo boo xam ne sëtam la bu góor yonentu yi su ko bàyyi daal nettali mu ne bis booba yonentu mi ngi togg ci albaaw doomam jooju nga xam ne mooy aliyu ba pare tañ laayoo kaala gu ñuul mu ne ndax lu ñuul nekke mën naa am mën na mën naa jëriñu keroog ba yonent di def fatxu makka kaala gu ñuul la la la la la kaalawoo bët soo ko xoolee li ciy gis lu ñuul la kaaba gi dafa ñuul li nga xam ne mooy noflaay ci doomu aadama bëccëg yëpp kër kër yi la waaye guddi dafa ñuul yooyu yëpp yàlla ko moo ko jagleel kon buñ xeeb suñ bopp ñun li am keneen amu ko ñun li am moom lañu doy parce que Bilaal mooy njëkk mo ñëk taxaw ci kaaba gi dal di nodd koku yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daana wax le yàlla def na limi muy de séddale mu ne mu ne ki ben ben ben sahaba ne ko ma ngi sant yàlla mi nga xamni yow mom nga yëfi mom moko mom diko di ko neex mu ne ko la xeeñ bilal ibn rabah ci habasha mu ñëw fi la xeeb la xew mu ki مسلمان الفارسي مونيكو داغا خامني گت گا خانيون سلمان الفارسي مو جوي سي فارس دال لي نييو جار سي اي جار جار يو ميتي باني جاي كو دال لي يوبو كو مدينه مو ديم ديفا خنت يونت يالا مونن يونت يالا محمد نيو صلى الله عليه وسلم ني مكه لا جودو واي فوف لاي مجي مونن مونن لولو لولو سو فيكون ني ياكو موم ديكو سيدوي سا باي جيغا خامني موي ابو طالب موي مولا ير مو واخون ني والله لن يصلوا اليك بجمعهم xataa wasala fi bi dafinu ba nga xamee na ñoom ñoom ñoom Quraysh ñëw nañ ne ko dañoo bëgg gune gi nga xam ne def nañ lu nekk mënta jubóog ñun ñu jox na suñ kii bi suñ doom ji nga téye ko teg nga jox ñu Muhammad ñu rey ko ndax ñàkkal na fayda suñ suñ suñ suñ diine yi ñàkkal na fayda suñ suñ suñ suñ suñ gëm-gëm yi mu ne ko ah yéen daal da ngeen a bëgg ma yaral leen seen doom di ko yefal man suma doom ma joxel ko mu ne ko du ma ko def mukk laa dina fekk dañ koo gaaral ne su bëggee da buur ñu def ko muy suñ buur su fekkee ne dafa bëgg xaalis ñu dajale ko alal ñi am yépp ba mu ëpp fi alal su fekkee dafa bëgg jigéen ñu jox ko tànn ñu bàyyi ko mu tànn jigéen ñi ko neex ñu may ko ko waaye na bàyyi suñ yàlla yi muy suufeel mu daal di moom abu abu taalib daal di oo oo oo oo yonent bi ne ko déglu sa mbokk yi ñoom kat dafa mel ni bëgg nañoo juboo gaaral nañ ne lu nekk mu ne yonent bi daal di mu ne dem foo ne bàyyi ji daf ko bëgg a bàyyi mu ne ko looy jooy mu ne ko law wudia shamsu fii yem fii fii fii nii wal qamaru fii yi mu ne ko gëñ naa ci ki ma bind bind la suñ jëloon jant bi teg ko ci suma loxoy ndeyjoor jël weer wi teg ko ci suma loxo càmmooy mu di ma lakk bàyyi mu ne booba kenn xamul ne la jant bi ak weer wi machine buy lakk lañ mu ne ko du ma bàyyi lii du danaa danaa continuer ba ma ba may dee wala wala wala wala ma def li ma soow sama borom wax mu ne ko demal du ma la bàyyi mukk laa dina daal ne ko mu mu yonent mu toog ñu embargo ko ñetti at ne duñ jënd ci ñoom duñ jaay ci ñoom duñ leen may jabar duñ leen def dara ñu dem bay bay bay bay bay bay bay lekk suuf ku xëy am njaboot da ngay taal taal rek di taal mel ni dangay ngay togg nax gune yi ba gune yi nelaw. waaye dara nekku fi ñu ñu embargo leen waaye ba yi fi sàppee yàlla mujj na dimbale leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag dañ ko doon mbugal rek waaye dañoo dañ dañ ko doon dañ ko doon jëw rek waaye nag dañ ko amoon am am kersa ci moom mësu ñëw jàkkaarloog moom di ko xas waaye nag bañ jàkkaarloog moom jàmmaarlook moom dégg nga daal ne ku ñëw ku ñëw ku ñemee ñëw jël sebbiri si gëlëm gi gëlëm gu wasin ba mu am ñetti fan ñu daal di fekk muñ fekk ci jumaa ja fa mu jullee ca Kaaba ga mu ne ku ñu jël mën a jël sebbiri si teg ko ci kaw yonent bi mu daal di dem Abu Jahl daal di dem sotti ko tiimal ko sotti ko ci kaw ba pare teg tànkam ci baatam ba ay bëtam di buqee ko Abubakar Sadiq daal di jógee fee ñëw ba dóor leen benn fettam ne leen ataqtuluuna rajulan an yaqula rabbi allah lu ngeen di reyee benn nit boo xam ne waxul lu may suma borom moom itam keroog la jàkkaarloo ñoom ne leen wallaahi yàlla yónneewu ma lu may ma ñëw toroxal leen ñu ne ko mu Abu Jahl ne ko man mu ne ko ba ci yow yow ak Utbata ak Saybata ak Walid ak Abul Buxtari yéen ñëpp danaa leen tëral leen di leen waaye loolu keroog ca fatke ca xare xasatul badr keroog la ñëw taaj ñoom ñëpp ku ne ku nekk mu ne fii lay ñëw ci xare boo xam ne téeméeri nit la ak ñetti téeméeri nit la ak fukk ak ñett ñu jàkkaarlook ak armée boo xam ne ñi ngi nekk junney nit yoo xam ne ñi ngi amee seen ngànnaay ba bisat fukki gëlëm lañuy lañuy la ñuy añee waaye yàlla ne ngurub su tuuti kuréel su tuuti te ànd ak gëm yàlla mën nañoo duubul téeméeri ñu leen ëpp te te te gëmuñ yàlla moom keroog bis booba lañ leen rey rey ci juróom-ñaar fukk daal di jàpp ci juróom-ñaar fukk ñoom ñëpp ñu indi leen teg leen ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne lu ngeen xam ci ñu xasaw ñii biig mënumaa nelaw ndax su ma binni suma baay abbas ibnu abdul mutalib mu yow moom yonent bi li jikkoom dafay dafay waxtaan ak saxaaba yi mu ne leen dafa di diisoo ak mbooloom mu ne lu ngeen xam ci ñii aboubacar ne ko ndax sañ naa wax mu ne waaw mu ne ko yërëm leen rek dañoo bon rek waaye say mbokk lañ mu ne ko suñ demoon fekkoon ne Faris ak Ruum songu nañ leen ñoom yow la ñuy làqu si kon nag gannaaw yow ñu ngi sa loxo yërëm leen rek nga baleen say bon nañu waaye baal leen jëlal ci ñoom ay jar ay jar-jar rek loo xam ne danañ ko dimbalikoo ci beneen xare mu ne mu ne mu ne al Omar ibnu Xataab waxal yow luy sa xalaat mu ne ko ñii ñooy boppi kéefër ñii ñoo tax ñu génn ñu màkka ñii ñoo tax fukki at ak ñett ngay oote ji màkka kenn uyu la rey leen ñoom ñëpp bu ci bàyyi kenn ku ci koo xam ne ci bani Xafs la bokk nga jox ma ko man ma rey ko koo xam ne mi ngi jox bi bokk ci bani Haasim joxal Ali mu rey ko Aboubacar mi nga xam ne xolam dafa nooy nag ku bokk ci moom joxal ma ko ma jox ma ko ma reyal ko ko ma reyal ko ay bokkam yonent bi di nga xam ne ma doon ma doon Adam mu dugg ci néeg bi ñoom ñëpp ñuy werante ne ah, xalaati Aboubacar lay def ñi ne xalaati Omar lay def mu daal di dem ba mu yàgg mu daal ñëw génn ne waaw def naa li Omar li Omar wax ñoom ñëpp ko indiwut ñeent fukki libidoor doo fi jógee ba mu waxee loolu fekk ki nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy mooy gore yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bi nga xam moo doon moo doon jëkkër Zeynabu mu daal di ñëw aba abal aase moom moo doon goro Zeynabu goro goro yonent bi ci Zeynabu Zeynabu mooy taaw yonent bu jigéen kooko doon jëkkëram waaye bi lislaam feeñee yonent daf koo oo ci lislaam mu bañ di mbugal bu ba fekk amoon na biir bu tuur mbiir mu tuuru yonent yónni ci saxaaba yi dem jël jël si ko ba mu indee loola bañ ko indi bañ ko indee moom ñu ngi leen eew ba mu ñu teewale leen nee ku indiwut ñeent fukki li bi doo doo fi jógee ñi nga xam ne ñooy suma mbokk yi ñoom ñoom ñoom ñoom ñeent fukki libidoor ñi ci des ñaar fukki libidoor ku joxe ñu jox la sa jar-jar ba nga xamee ne moom mu ne moom Abul As yi mu ne goro mu ne moom amul dara yonent ne ko soo joxewoon ñeent fukki libidoor doo fi jógee mu yónnee ci Zeynabu fekk Zeynabu moom mi ngi ci kër yonent mu ne mën ne sa baay daf may laaj jar-jar te aw ma dara mu daal di jël caq ba nga xam ne mu ngi ko jën moom moom Zeynab mu ngi ko doon newoon ci xadijatu bint xooylit yonent bi xàmmee ne yàgg naa gis kooku nga xam ne moo àndoon ak yonent bi ca zéro boobu yonent amul dara ba ñu ba ko ñëpp xañee alal moo ko jox am bu ko ñëpp xañee doom moo ko jox doomam ba ñëpp bañee ànd ak moom moo ànd moo moo njëkk a dëggalaan encore mooy xadijatu moo tax loolu mais lu yàlla di may jigéen ñi la jigéen a njëkk a lislaam waaye jigéen moo njëkk a joxe deretam bakkanam itam ci lislaam mooy Sumayya ba nga xamee ne yónnee na ca moom mu daal di yónnee ca Zeynabu Zeynabu daal di jox ko caq bi bi yonent bi gisee caq bi rek xàmme ko ne te ngeen ko jox ab caqam ak ab jarjaram ñu daal di oo ko ci lislaam mu ne maa lànk ñu ne ñu ne ko moom seeboo demal sa yoon muy Abbas mi nga xam ne bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abu kii kii kii ko jël moom doom moom moom moom Abbas Abdul Muttalib moo ko jur ki jur Abdoulaye moo bàyyi yonent bi ñoo bokk bàyyi moom jàpp bokkoon nañ ci ba jàkk jar-jar yooyu mu ne yonentu man de xanaa dag ma wàññil ndax guney Quraysh yëpp maa leen di jote maa leen di jot mu ne ko amoo barke loolu yow kay dangay mën a jot sa bopp rek wala ku jot boppam génn mu ne ko kon nag jàpp dem jàpp ci xerbe jàpp nañ fekk nañ ci man ñaar ñaar téeméeri libidoor defal moo ko ci ban mu ne ko amoo lu amoo mu ne mu ne ko mu yow daal nga indi sa xare pour xeexee ko yàlla ak yonentam après ñu dina ko delloo loolu perte nga ko mu ne ko xanaa da bëgg sa baay yelwaani ci digg màkka mu ne ko yelwaani mu ne ko waaw amat lii rek laa amee li nga li laaj mu am aw kon fu ma jëm mu ne ko an alal ja nga dencoon ca xeer wa ca xajjun ca màkka keroog ba ngeen départ di ñëw di xare si ak man mu ne ko ah loolu ku la ko mu ne ko suma borom mu ne ko mu ne ko ku la ko wax mu ne ko jibril jibril ko ko ko wax mu ne yàlla mu ne boobu borom tey muy suma borom ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu an muhammad rasulullah noonu la mu daal di mu ne nag ñi ci des ñi nga xam ne dañ ne amuñ xaalis liñ déparé woon wax ji léegi mu ne jullit ñi nga xam ne jàng nañ te nekk ci xare bi te jàpp leen ku fekkee ne ku mënta jot sa bopp nga jàngal ñeenti jullit bañ xam jàng bañ xam alphabet ñu doon la bàyyi nga xam ne kon yonentu jàng interessé na ko te wax jooju ci lañ déparé woon ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di sant asalaamaaleykum warahmatu barhaamu baun waraun alifun thumma ha mi mun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy naam